salaamaaleykum madame le président maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre di jiital ci nuyu bi ak char bi Cheikh Mahamadou Mountakha di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu tëwel di ko ñaanal kilifa diini ci réew mi yëpp monsieur le ministre maa ngi lay nuyu te damaa ñëwoon ci ay question rek ndax en deux mille dix neuf président mak Sall di toog dafa indaale woon benn programme programme bi mi ngi nekkoon. tabax ay këru ndaw ñi mooy mission de la jeunesse ci quarante cinq département yëpp ndax boobu Kër Massar amagul boobu mu ngi coûté woon état Sénégal quarante cinq milliards mu dugaloon ko ci banque bi ñu wax BNDE te léegi seen transiment boobu nekk directeur général bi mooy Abdoulaye Niane ngeen joxoon ko société bu ñu wax Kenex mais depuis boobu ba léegi gis nañ ni benn kër moo ci pare muy kër gi nekk Kaolack te madame le maire ba léegi ñëw di la félicité mooy département Guinguinéo ñuy laaj kër yi fan la ci toll ndax programme bi da ngeen ko continué wul wa ilaa xaalis bi société bi ngeen ko jox fan la toll ci liggéey bi loolu muy question bu am importance beneen bi ci toppaat tamit gis nañ ne Touba ñetti junni daara ña fa mooy 3000 daara alxuraan ña nga fa te yi ku ci mokk alxuraan ñaar yi lenn mooy sa métier mooy dawal saret wala nga nekk ci gaara si di mandi wala ngay gens ndax amul benn formation boo xamante état de la ko accompagner pour nga am liggéey laaj ba xam ndawi Sénégal yi dañ ci bokkul wala lu mu doon ndax gisuñ benn programme boo xamante ni état pare na pour accompagner ko gone yi mokk alxuraan gis nañ barki démb sax ministre éducation nationale bi mu fi ñëwee ministre Moustapha Ba ne yokk nañ ci budget éducation nationale 6 milliards pour accompagner ko daara yi ne 1 milliard 500 millions yi sax ceeb ngeen koy jëndee pour subventionner ko daara yi ñooy laaj loolu sax xam naa suba lañ ci dellusiwaat mais daal li ñu gënoon tax a laaj tey question mooy ndax xëyu ndaw ñi moom awa ilaa jàppale ndaw yi nga xam ne ministre de la jeunesse moo koy def daara daara yi dañ ci bokkul wala nu ña nga fa màggalu Touba gi jàll ñetti junniy xale mokkal nañ alxuraan ci biir Touba yoo xamante ni ku ci nekk tari déglu nañ la nga déglu nga nga tari kaamil suñu borom bi te ñooñu ku ci pare du am dara looy liggéey wa ilaa du am dara ci ñu lay jàppale tey jii boo fekkee ni danga xool xool calendrier yi nga xam ne gone yi topp géej gi dem li ci bokk ci doomi Touba kenn xamu nu mu toll Touba marché ambulant bi kasaalika na ko noonu kon jàpp naa ne ñi gën a soxla ndimbal bokk na ci ndawi loolu nag aajo woon ab liggéey bu mat sëkk boo xamante ni doy na la sëkk mbubb ak tubay ka wër plateau télévision yi di saaga góor goo xamante ni moo la gën foofu wasalaamaaleykum wa